ñu ngi lay siyaara bu baax ngir dem si tubaab xasida yi parce sax ma sàmm mi nga yaakaar ñu ngi lay nuyu di la siyaara bu baax di sant ci turuwaa daayira bi boo gisee ñu jox ma nag micro bi di ma la sant loo muy sëñ Alla gi mi di président bi ak sëñ Badara Sey Male dañoo jàpp ne lott nañu ci yëkkati seen kàddu ñoom di sant moo tax ñu yëkkati kàddu gi ngir mu gën a am daraja ñu jébbal ma ko ngir sant la ci turu sëriñ bi ak daar yi ak dëkk bi yëpp ndax umpule wu ñu ne ba ñuy dëkk dañu ak yow di la indi ci barab bii daf ñu door a ñëw lañ yëkkateen jox la ko boo ci ab saabu sax daanaka doo a paas ak ñëpp ngay sàmm kóllëre googu ak ñoom kon xaalis indiwut la ci kóllëre ak Serigne Touba mi la liggéey loo moo la boole ak ñoom ba tey jii ku man di fanaan fii sa jëmm ji moo ko gën a soo defee benn 30 secondes sax ñu lay fay un milliard te am ko ñoom jaral na leen maanaam mën nañoo ñàkk lépp ba mu des ñàkk jëmi ak saa ci péetam guy làmbaay loolu waxuma la daayira bi waaye soxna yi ci ginnaaw ak tout tànk yi saytu liggéey bi ñoom ñëpp ñoo maase ci loolu su bis bii jub si seen xel yëpp mi ngi nekk ci ndax danañ maanaam ak saa wala duñ ko mën am kon cofeel googu rek lañ mën a feeñal sa diggante ak ñoom ngir fayee la ko waaye li ñu yëkkati di la ko jox daal nekk na loo xamante ne ay doomu aadama rek ñoo ko liggéey yoo xam ne gëmuñu yàlla ragaluñu muy bañ a def àdduna mi kon jàppee ñu la lool waaye xasida yi Serigne Touba yi nekk teew Serigne Touba liggéey loolu dama ko wax sëñ léegi nii dama ko ne ku neex baat rek nekk ab jàngkat du ku moo ko xasida yi nekk ab jàngkat jàngkat bu xasida bu nekk askan war a bokk teg nañ la foo ne daanaka xanaa seen wasila lañ lay gëm-gëm la jàngkat bu xasida bu nekk rek. léeg-léeg am wàccuwaay boo xamante ne ci doomu aadama yi sama jur sax mën na ko bañ am kon jàng xasaay ab cër la ni Sëriñ Tuubaa di seexale ndongo lu ci moom di sàkku ngërëm ba mu gërëm ko tafal ko mbooloo noonu la yàlla di dogale ci ab jaam séddoo ko muy jàntal xasida kon jàng xasida du kum neex rek nga def am na ñoo dàq baat fuuf gën laa mokkal waaye Sëriñ Tuubaa jox la mission boobu kon mission bi ñu la jox Serigne Touba dénk la ko xam nga ko te yaa ngi koy rafetal sa kéem ku la xam xam na lolu ci yow ñun xam na la bu baax ndax ci tànk yi dañuy yëndoo ko fanaan sëñ Aliou Seye mi xam na ci dal mom bam mu communiqué bi lay ne comme sëñ atassa bi fanaan rek mën na bee fanaan ñëpp ànd na dañoo dañoo yeewee bàyyi ko kon sëñ atassa wa daayira bi ñu ngi fàttaliwaat seen couleur ak yow ci turu sëñ Alaaji Caam mi ak Badara sey ak mboolem mbolo mi top ci ginaaw di góor ak jigen di fajali seen kóllëre bu baax dina sant di ñaan suñu borom gën la ko yàggal dara saxut nag waaye ñu ngi ñaan yàlla ak seexul xadim ak xasida yi yàlla gën la fee yàggal te may la kàttan te bàyyi la sam xel asalaamaaleykum wa